100 de cent day wax dëgg yàlla <laughs> toj na foire bi de 100 foire na foire bi de sixième édition mom sept 2023 100 mom turam dañ koy bind ci histoire anal bi. waaw euh, Kocc lolu c'est normal ndax 100 bo xolé li waral turu 100 bi rek moy 100 pour sara la. ok. wax yaayam doomu sara la bo xamni ne Néné Galle moo jur Néné Galle doomu Mor Suuf kooku foo laal ci xaru Sénégal kon dajee bokk. nga ñëw ci côté papaam moom mu nekk doomu Samba Lawbe. Mhm. Samba Lawbe nekk doomu Touareg ak Mixa. Mhm. Touareg nekk doomu magistrat mais yaay Touareg nekk doomu Boy Séeréer. ñu indi cent pour cent nag indaale production mhm. ak production rond point nekk doomu gaynde waaw xam nga gaynde moom ñëpp xam nañ ko doomu sax waaw Euh, rond point nag waaw li war a point bi moom it. waroon nañ ko xam nag. waaw ndax moom li war a point bi dañoo jël doomu Saalum ak Calvin Cap bu jigéen femelle jël ko jox ko Rijal Rijal nekk doomu Roi Saalum Roi Saalum nekk doomu Saalum waaw Rijal yaa ji nekk doomu Koromak Joyaay nekk doomu Khalifa Khalifa nekk doomu Koromak Rijal boobu lañ jël jox ko doomu Saalum bu jigéen mu jur Netflix Netflix boobu nag lañ jël jox ko euh, gaynde rond point judd. waaw suñu goro suñu xarit Samir Yonis jox ñu ko wax dëgg yàlla am mbote à un mois mu lañu ko joxe mu ñëw kër ga waaw mu ñëw kër ga ñu yafal dem ak moom fekk mu fekk fa ay femelles it waaw wax dëgg yàlla fekk fa base bu mag nag ndax euh, comme ni nga ko waxee rek xam nga sans kaar kaar kenn umpale wu ko ci élevage te bergerie ba la juddoo ko Mandela jaar na ci bergerie ba Drogba Boro euh, bu ma doon lim du jeex ñu ngi ci bergerie daaray kokki daaray kokki nak bu ngeen ko déggee seen xel dem ci ndanan bu mag bi jëmm ji nga xamantene marqué na à jamais empreinte ci élevage au Sénégal ci yar gi ci teggin bi ci personnalité bi waye nak ci production yu doy war yi booba ak léegi bi mu téyee ba tey bàyyiwul le champion Damlo ken dootu ko présenté dans l'histoire de l'élevage du Sénégal xana diko ñaanal yalla rek la fal ko ciat waye ndanan dal ci bir ndanan yi ci génération machallah ma ngi toog ak nag Mor Samb waaw ñu ñëw woon fii ci foiru seb bi sixième édition bi incha allah ñëw exposé fii bergerie Daaray Koki ak bergerie Dame Lo waaw ngeen indi nag ay production yu doy waar man daal li ma jaaxal ci Daaray Koki mooy dafa mel ni am na secret bu fa am ndax génération bu ñëw da ngeen di daal di mën a ànd ak ñoom ba pare bokk nag ci crème bi ca kaw secret bi lan la waaw euh, secret bi weesul diisoo waxtaan waaw ndax euh, bergerie daaray Koki bergerie Dame Lo Mor Samb dañ koy gis nii ci kanam mais moo ci gën a tuuti. njabootu rond point moo ñëw ak njabootu 100 pour cent ñan ñoo ci njabootu 100 pour cent. waaw njabootu 100 pour cent yi ñoom ñoo nekkee nii sama ginnaaw. Mhm. njabootu rond point yi ñoo nekk euh, am na yu ci nekk nii. mooy yi mooy yu ndaw yi. Mhm. ñoom ay njabootu rond point lañ. Mhm. mooy añel yooyu ngay gis ñetti añel yooyu. ñoom ñëpp ay doomu rond point lañ. macha allah te aussi loo ci xamul fii liñ. ñun dañuy préférer bu ñuy dem foar suñu production lañuy yob fi mal bi rek waaw né à la bergerie mal bi rek mo fa juddoowul mais production bi ñew moy euh, mal bi mën naa fa la juddoo waaw ndax kiko waaw waaw kon fa la juddoo bu dé 100% mi 11 mois la fa ñewé mais kiko jëndon sama xarit Omar Seck en un mois la ko jëndé moins 1 mois sax xoola doomu rond point bi waaw. moom mi toll ci ñaata mois. kii am na quatre mois. waaw ah, am na quatre mois. di ko taawloo espoir la mi ngi fii eh, yaay ji doomu patience la mooy comme li ma la wax noonu. doomu patience boo xam ne yaay ji doomu kaar kaar la. waaw nga xam ne nga xam ne ñoom ñii seeni yaay ñi nga gis ni seeni yaay sax fa lañ juddoo. Ah waaw bari na ci yoo xam ne seen i maam fa lay juddoo. waaw nga xam ne élevage daal moom li may wax rek élevage continuité la. boo ci nekkee te fas yéene woo bàyyi fas génn goo loo gis lu war a yokk sa élevage da nga ko war a def. mais macha allah 100 cent toj na de. waa 100 cent toj na boo gisee añel bi doomam la xale bës xale nekk doomu 100 pour cent mais yaay ji nekk doomu jant bi jant bi nekk doomu boy taala xale bës yaayam yaayu jant euh, euh, maam ji nekk euh, référendum di fixé ado waaw doomu ado fils lañ jël ak doomu ado bu jigéen boole leen. ci la maamam juddoo moo tax gis nga ko moom lu mel nii lay jur xoola añel bi waaw kii yaay ji doom booy taala la yaay ji doom booy taala la waaw kii juróomi maamam yu jigéen bergerie ba lañ juddoo waaw ci bergerie bi waaw juróomi maamam yu jigéen kii mooy feu vert waaw Faubert mi ngi nii moom doomu rond point la yaay ji patience. mais Mor tur yu garaaw yi ngeen di génnee dafa tur yu original yu rafet. waaw euh, tur yëg-yëg la war a nekk. waaw waaw waaw mu méngóog circonstance kii circonstance la la tombeel turam. feu vert bi mu indi feu vert bi waaw. l'homme a marqué à jamais son empreinte ci l'élevage au Sénégal merci beaucoup fii ci bergerie Daaray Koki la woon.